jàmm mbokk yi ci xibaar yi làmb te àllarba yem mbokk fanweeri fan ci weeru décembre atum 2020 dañu koy doore nag ak huis clos bi nga xam ne njort nañu ne ci ay fan yu néew danañ ci dem ci làmb ji daal di koy organiser ci organisation boo xam ne supporter du ko fekke loolee nag amateurs yi daal dinañ ci àddu joxe ci seen xalaat Serigne Mbacké Ndiaye mi fi nekkoon ministre moom it jamono yi maître Abdoulaye Wade daal dinay joxe xalaatam ci organisation huis clos boobee ndax lu mën a nekk la wala déet ci organisation huis clos boobee naka la ñu koy defee ndax day jaadu ñuy def ay testu Covid wala déet en tout ki nga xam ne moom mooy médecin bu CNG ñu gën koo xam ci Thierno Abass Ka ñëw na ci ci ni mu gën a yaatoo li ñuy jeexali xibaar yi nag mooy Ama Balde mi nga xam ne ni ndawam loole dippe boppam euh, Ama Balde mu nekk soppeem ñu gën koo xam ci jibi Ama daa doon tëdd tawat bu méttee méttee métti moom am na ay ndimbal yoo xam ne nii ay famem ñu ngi ko doon sàkku ba am na ñenn ci autorité yoo xam ne jot nañ cee dugal seeni loxo mbokk yi moo nekkoon li gën ci xibaar yi bu bàkk bi daanoo ñu dikk gën ci yaatal yi jërë ngeen jëf mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel fii ci wasaare làmb di fi taaxirloo xibaari lamb yi comme ni nu ko waxee nag ci njalbeenu xibaar yi affaire yi huis clos ci la ñu fas yéenee dugg huis clos nag bu ñu ko waxee mooy làmb joo xam ne danañu ko organiser te ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi duñu fekke fekk ji loolee ca sàbb loolee nag mën na nekk wala mënta nekk li am ba des mooy amateuru làmb yi nga xam ne ñoo doon dagg seeni i billet yeeg biir ñoo doon dagg seeni i billet dugg biir stade ñoom nag daal dinañ ci wax seen xalaat ci micro jii Djily Kébé ci reportage bi nga xam ne defal nañu ko foofee ca Sandaga. micro kooku ça dépend si promoteur bi ko organisé. waaw mais ñun pare nañ pour lépp ñun daal couronne bi moom jàpp nañ ne mu ngi technopole di ñu dégg si EDK bi. huit kilos. huit kilos comme maanaam ñu ubbi du ñu ubbi stade bi ñaari mbër yi ñoo ñëw bëre mais kenn du seetaan si loolu noo moom du làmb moom wax dëgg si yàlla lam moom bu ñu ko waxee moom amateur a tax te amateur moom mooy neexal lam lam kay bu fa kenn nekkul comme ñu nuy vubale nii mat mat si nii kenn nekku fa loolu bu dee lam la loolu man manu la nekk sax loolu moom man la nekk moom ah pour man boobu. lamb balaa mooy neex dëgg-dëgg bon mbër mi taxaw Sadji supporters yi ñëw supporters yi taxaw maanaam loolu foofu la deret mbër yëngoo mbër balaa deretam yëngu lamb ji fe mu xool public bi lamb ji fees dell. ci la deretam di yëngutoo mu ne tey duma daanu donc ci animation ci biir géew mbër yu bëri ci biir géew lañ daan lo supporter lañ daan animé ay Gris Bordeaux ay Tapha ñoom ay ñoom Zallo ah ay ñoom Ama Baldé ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye ñoom ñëpp supporter la ñuy animé buñ geesoo làmb ji xool tribune bi fees dell amateur yi supporter yi gis làmb ji fees moo day maanaam day neex ñoom dañuy am envie sax bëre. non làmb véhiculé nag. Euh, làmb moom bu ma sañan buñ ko dee def moom du doon véhiculo ndax véhiculo ci làmb moom euh, làmb dafa doon loo xam ne nii nun suñ cosaan la te loo xam ne nii dangay toog sa kër rek kenn bañ a dem wax dëgg yàlla bu ma sañan daal état bi xool beneen kii bu mu ciy jël boo xam ne nii nit ñi dina mën a dem ja làmb ja di ko comme euh, respecte missile barrière yi mais véhiculo moom doxalul làmb quoi pour man ci sama gis-gis. gannaaw ba ñu jógee ci ñoom ñoom amateuru làmb yi nga xam ne nii bu làmb neexee ñoom la Serigne Mbacké Ndiaye moom it daal dina yëkkati ay kàddu jagleel ko huis clos boobee nga xam ne nii boo moytuwul rek làmb ji danañ ko organiser ci anam boobee moom nag daal dina ci xamle lu yaatoo yaatoo yaatu rawatina xorom si nga xam ne làmb ji amoon na ko te ñu ko amal mooy supporters yi nga xam ne ñooy dagg seeni i seetaan kon dañuy seetaan ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mbacké Ndiaye. ci mbiri huis clos ba léegi képp kuy debaa ci làmb rek bokk na ci liy animé débat bi à 100 pour cent sax mën nañu ko wax ba loole moo waral Serigne Mbacke Ndiaye mi fi nekkoon ministre ci jamonoy maître Abdoulaye Wade yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci bile huis clos la mu xam xamle nag mooy làmb riimewut ak huis clos ndax nag li nga xam ne moom na làmb baaxoo bokk na ci ay bàkkoo ki woy bokk na ci public buy seetaan ak a tàccu bokk na ci ay mbër yu bàkku sek gis ku leen di may xaalis loolu lépp nag boo ko génnee ci làmb làmb dana ñàkk xorom ba li ni mel moo waral mu xamle ne huis clos dañu koy def ci Europe mu leen di jig waaye jàpp na ne buñ ko defee fii ci Sénégal mën nañoo ñàkk jig ndax conditions yi duñu benn ndax fee di nga am droit de retransmission boo xam ne nii dana fay frais yépp wala sax lu ëpp ci li ngay frais dana ko couvrir waaye fii ñun amaguñu loolu ba moo waral conditions yi matewu ko ngir ñu mën a bëri ci huis clos bu ñu waxee organisation làmb à huis clos dañuy wax mbas mi nga xam ne moo lëmbee àdduna wërngal këpp te gàllankoor lamb ji ba kenn mënta bëre loole nag mbokk yi dana am am du am wala danañ ko defam déet en tout cas ki nga xam ne moom mooy médecin bu CNG ñu gën koo xam ci Thierno Abass Ka ñëw na yëkkati ay kàddu daal di euh, fësal li nga xam ne moom mooy xalaatam ci loolee ak euh, bu ñu ko naree def naka lañ koy defee test yi aussi naka la ñu koy defee kan moo koy jël en charge moom la ñuy daal di déglu ji ci kàddu yi nga xam ne ni rotal na ko ci journal sunu lamb tey bi. mbiri wii kuloo guddi yii moom mooy animé débat yi muy képp ku bëgg làmb ngay amateur wala ngay bër ngay arbitre wala ngay médecin CNG sax wala nga nekk ci làmb mbir mi sa mbir la yaa ngi ciy waxtaan saa su nekk bolole moo waral médecin CNG bi ñuy wax docteur Thierno Abaska génn daal di wax lu leer nañ jëmale ko ci wii kuloo boobu ak naka la ñu koy organiser moom nag li muy sàkku mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gravité autour de la lutte tey nekk ci enceinte bi ñoom ñëpp ñu testé leen ba xam ndax war nañoo ñëw ci géew bi wala déet bu ñu waxee nag ñiy gravité autour de la lutte ci bésu organisation bi faaw ñu tudd arbitre yi tudd médecin CNG yi tudd ñi nga xam ne ñooy entouragé mbër meeg mbër mi ci jëmmi boppam loolee nag moom la Abaska di sàkku ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ŋànk làmp ci waaye nag buñ demee ba nara def ay testu Covid ana kan moom mooy chargé woo test yooyu ana kan mooy fay test ci loolee nag moom Abass Ka médecin bu CNG daal di joxe xalaatam xam le ne loolu ñu ngi ci doon waxtaan bu fekkee promoteurs yi état dàmp na leen rax ca dolli am télévision boo xam ne signé nañu ak moom ba noppi ñu am pay-per-view am ay sponsor am yeneen i partenaire day jaadu nag ñoom ñu jël mbër yi nga xam ne ñoom la ñu engagé fayal leen test Covid yooyee. bu ko defee danañ mën a bëri te duñu am benn gàllankoor loolu mooy kàddu yi Thierno Abass Ka médecin bu CNG. comme ni ñu leen ko waxee it ci njalbeenu xibaar yi ki nga xam ne moom mooy Djiby Ama dippe boppam Ama Baldé doon ànd ak soq gannaaw accident bi nga xam ne ni jóge na ko mu metti woon lool ba mu jëlee fa benn feebar bu metti diirum ñaari at sax mu tëdd jógul am nay ndimbal yoo xam ne ay famem ñu ngi ko doon sàkku ngir mu dem ca tugal faju ji loolee am na leneen lu ci bees ñu teewlu reportage bi ñu leen defal ci journal sunu làmb tey feebar ci ay at yu bari moom Djiby Ama nekk ci ay tolof-tolof yoo xam ne képp ku dégg situation rek li ngay bëgg mooy jàppale ko ba mu dellu siwaat ci wërgu-yaramam Ama Baldé mi mu dippee boppam nag seetaanu ko benn yoon ndax ni ki démb mu nga woon foofee ca ministre bi nga xam ne moom moo fi nekkoon le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ngir appui boo xam ne mën nañ ko ko appuyer ba mu mën a retrouver santé ci loole nag ancien ministre boobee di Aly Ndiaye seetaanu leen benn yoon ndax yëkkati na enveloppe deux millions jagleel ko ki nga xam ne moom mooy Djiby Ama famille bi di ko rafetlu bu baax ñu naan nag gàcce ngaalaama l'ancien ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye waaye Ama Baldé moom it gàcce ngaalaama ndax taxawaay bu mu waroon a taxaw Djiby Ama rek taxawu na ko ñu koy ñaanal yal na ko yàlla xettali ba mu jotaat santem ci ni mu gën a gaawee. mu ngi noonu mbokk yi li ñu faral di wax saa su nekk rek Sénégal benn bopp lu kenn mënu koo xar ñaar balaa nga koo xam nga nekk ci ay jafe wala nga nekk ci ay tolof-tolof. en tout cas jëmm ngi nii joo xamante ne nii làmb taxawu na ko wala sax ñi nga xam ne nii ay bonne volonté lañ te nekk ci réew mi taxawu nañu ko ba mu fas yéene faju ba dellu siwaat suñu biir yal na ko suñu borom euh, taxawu ba mu dellu siwaat am wér-gu-yaram bi nga xamante ni amee woon na ko noonu nag mbokk yi ci la ñuy daal di tàggoo ak yéen ci tàggoo bu dul tàqaliko comme ni ko Baye Jili di waxee saa su nekk leen jox dig daje ba ëllëg incha allah nees tuut nag ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa ancien ministre ba Serigne Mbacke Ndiaye ca ndaje mbër mu teewe woon moom Serigne Mbacke Ndiaye conférence de presse u mbër nekkoon am na kàddu yu mu fa yëkkati woon moom la sunu làmb xëy fësal wax na ci CNG bi ñëpp njortoon ne moom la ñu koy dénk wax na ci huis clos bi wax na ci Moustapha Gueye ak Mbaye seeni jamono wax na ci combat bu mag bii di dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo moom Serigne Mbacke a ngook li ko dale ca Iba Mar Diop ca Demba Diop ca Léopold moom Serigne Mbacke du wute làmb fu làmb am sol na daalam fekki ko ba ñu ko laajee ca tudd gañ ko doon tudd ci kan mooy remplacer président Aline Sarr ci bopp CNG moom la mu xamle mooy mëbétu amateur yi képp la woon du man Serigne Mbacke maa mos a ne damaa bëgg a nekk président CNG nit ñee xooloon ba mu neex leen ñu tudd sama tur ñépp xam nañ ne bëgg naa làmb te dama koy fekke ñépp xam nañ lu làmb nekk maa nga ca waaye doon Ndiaye trancé na ca la mu xamle mooy dañoo war a identifier mboolem mbër yi bëgg a nekk roi des arènes ñu tëggal leen ab tournoi tournoi ba ku ca génn gàññe ca yaay doon roi des arènes ci diggante Mbaye Gueye ak Tafa moom Serigne Mbacke Ndiaye ba mu cay wax dafa xamle ne ñaari ngi ni nekk ay frère te wute lool ci bëre Tafa la mu am Mbaye Gueye amu ko Mbaye Gueye la mu làmbool Tafa làmboowu ko Moustapha Gueye était plus sur le plan de la dee ci làmb ak technicité Tafa yi lii moo leen di partagé bi nekk ci Tafa Gueye wóor nañu ne waaye sañ nekk ci Mbaye Gueye géey bi nekk ci mbay géey courage bi nekk ci mbay géey nekkul ci tafaa géey ba ñu ko laajee ca mbiri wii kuloo nag moom Serigne Mbacke Ndiaye la mu ca xamle mooy la xew Europe xewul Sénégal wii kuloo ba ñuy testé muy dox ci yeneen sport doxul ci làmb fii ku wax làmb wax woy wax bàkk wax spectateur nekk seetaankat yow wax ñay tàccoog ñay bàkkoog ñay maye seeni xaalis mbooleem loolee di gunge làmb boo ko génnee ci làmb làmb ñàkk xorom moom la mu jàpp mooy wii kuloo bu ñu koy def ñàkk solution moo ko waral ba ko laajee ci affiche yi taxawal diggante Ama Baldé Modou Lo Boy Niang 2 Tapha Tine Bombardier Balla Gaye 2 Eumeu Sène la mu xamle moom Serigne Mbacke Ndiaye mooy combat combat bi ma ci gën a marqué mooy diggante Ama Baldé ak Modou Lo bile combat bu rëy la combat bu mag la combat bii sax laay dippe le combat du dañoo nekk ñaari mbër yoo xam la aju seen ginnaaw dafa bari ñu gëm seen bopp am courage mën a bëre bu dee Ama Baldé mbër la moo xam ne nii dafa gëm boppam dafa am sañ dafa ñeme li muy def man bu ma demoon bay amaat beneen mbër sax Ama Baldé lay nekk waaye li ma bëgg ngeen jàpp daal mooy bile combat

attribution bi li mu jël nar koo jagleel làmb ñun kenn waruñu caa ëppale kenn waruñu caa jiitu kenn waruñu kaa xañ gannaaw nag dafa mel ni ci tànku xañ ñu ko lañ jëm ñun dañuy porter combat bi daal defu mars ci la ñuy woo ku nekk ci arel si di ci woo manager yeeg coach yeeg mbër xam ne làmba ñor ñu ngi lay woo ci suñu combat bi ñëwoo ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye ci seen combat ba mooy jibi Ama ki mbokkam moom Ama Baldé ma muy dippe boppam seetaanu waaye Ama Baldé it gàcce nga alaama jërë ngeen jëf mbokk yi li nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah